ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di dalal Malikia TV leeru Maodo ak équipe bi nga xam ne bi ñoo ko yore ci bis bu tedd bi nga xam ne àdduna bi yëpp dañ ciy fàttaliku Mawlana Cheikhul Xaaji Abdul Aziz radiyallahu taala anhu di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bismillah jërëjëf Pape Makhtar di la ziar waaye ñu doon la laaj rek kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. Euh, oustaz jërëjëf nuyoo Malikiya TV ñu ngi koy teg sa loxo ak équipe bi nga àndal yëpp mbuub nga jàllaleel ñu ko ci PDG di alxaaji Mouhamadul Mukhtar Ndiaye al Amin alxaaji euh, Souleymane Ibrahim alxaaji Souleymane Ibrahim. ak mbokk yu tedd yi nga xam ne ñi ngi liggéey ci télé bi ak ñépp rek <clears throat> li may tàmbulee bala may tontu sa laaj bu am solo bi ma laaj nga xam ne mënoon nañ cee bind ay téere def ci ay teesu de doctorat yu bari te du jeex waaye li may tàmbulee moo di yëkkati kàdduy nuyoo ak ziyaara yu tedd jëme ko ci kilifa gu tedd di suñu sëriñ di suñu doomu sëriñ di fadilatu cheikh Abou Bakr Mouhamadul Mansour xalif général de Tijane yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla may wér ak kattan gum mën a àggalee naal yi nga xam ne daf ko fee fekk ak naal yi nga xam ne am na ko ci liggéeyu maamam Cheikh Seyd El Hadj Malick radiyallahu anhu ak waajuram yu tedd yi nga xam ne ñoom la fi wuutu ak magam yu tedd yi nga xam ne ñoom la fi wuutu noonu ñu koy nuyoo noonu la ñuy nuyoo rakkam di xaritam di soppeem di léppam di waxtandoom di cheikh alxaaji malik abdul aziz moom itam yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér may ko kattan ak seeni rakk seeni doom seeni jarbaat ak lépp lu maam cheikh alxaaji malik jaboote góor ak mag ak ndaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara oustaz nga baal ma nuyoo boobu dama koy teg ci loxo xalifa bi mu jàll leen ñu ko ci kilifa yi lislaam bi yépp mboolem xalif yi nga xam ne ñi ngi nekk ci kanamu tariqa yi ñi ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu boroom xam-xam yi di nuyu ilimaan yi di nuyu muqaddam yi di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci daaray alquraan ji di jàngale xale yi di leen yar yarul lislaam di leen tette mboolem ñu nekk ci association islamique yi kenn ku ci nekk mbootaay yi nga xam ne ñoo tënk ilimaan yi ñi ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. da nga ma baalaat tuuti ma nuyu Malikiya TV leeru Maodo ndax li tax ma leen di beralaat nuyoo ak di leen sant. moo di initiative bii ngeen jël dafa am solo lool te mooy lan mooy fas yéene jëmmal mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la Sénégal am ndax réew mu nekk dafa am taarix dafa am histoire réew mu nekk am na ay kilifa yoo xam ne la xew ca histoire booba ñoom ñoo ko yanu ñooñu nag jëmmal leen ba ndaw ñi xam ñi ñu am ñan la mën roy ci ñoom mbaax mën roy ci ñoom njub ba seen réew du tardé bala ñuy jéggaane ñu ñuy roy bitim réew ñu xam ne fii ñu nekk am nañ fi mag ñu baax ñoo xam ne daawa bi deparewu fi Makka la tàmbulee ba ñëw Madina waaye leer gi ñëw na ba agsi Sénégal mag ñu baax ñoo ñu saytu ko jàngale yar ci circonstances yu méttee méttee métti kon bu ngeen demee ba xam ne jaadu na ñu jéem a tasaare ñooñu seeni mbind seen njàngale seen jaar-jaar seen yar loolu initiative la boo xam ne ñun ñëpp fa tabarakallahu ñu ngi koy apprécier bu baax a baax a baax a baax surtout ci jamono bi nga xam ne repère mi ngi fi de mais dafa mel ni dafay bëgg a ñàkk kon bu ngeen ñëwee xam ne bis bi bisu kenn la ci mag ñooñu di mawlaana cheikhul xaaji abdul aziz radiallahu anhu wa ardaahu ngeen bëgg ñu waxtaane aslëf ci dundam parti bu tuuti pour njaboot ki mën koo jariñoo man a roy ci moom lu baax li mu nekkoon loolu initiative bu am solo la boo xam ne ñi ngi ci encouragé Malikiya TV leeru Maodo introduction boobu laa doon def fa tabarakallahu door a dugg nag war a ma mën a tontu laaj bu am solo bi nga xam ne moom nga posé mu di kan moo di Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz radiallahu taala anhu damay wax ne pour tontu rek laaj bi nga laaj oustaz moo di ne Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu doy na ko teraanga sëkk ak tedd nga ak ngëneel mu bokk ci benn groupe boo xam ne yàlla moo leen siteel boppam ci alkuraan tagg leen wane seeni jikko mentionné ko lëm ca jublu nag moo di dafa bëgg njaboot gi ñëw ginnaaw group booba ñu jéem a roy ci groupe booba teg seen tànk fakk groupe ba tegoon ndax bu ëllëgee tagg wu rafet woowu nga xam ne moom la leen yàlla tagg ñu bokk ca bismillahi rahmaani rahim boo delloo ci téere yàlla bi suratul ahzab yàlla dafa wax ne minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi fa minhum man qada naxba wa minhum man yantadir وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما قل شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه suma سكن ci aaya bii ma jàng nga xam ne yàlla dafa wax ne am na ci ñi gëm ay kilifa ay gaay yoo xam ne lañu ñu wëllërate woon ak yàlla pacte ba ñu jaayante woon ak yàlla ca aalamul arwaax ñëw ci aalamul ashbaax ñu tegu ca wàccuñu ko te yàlla mi ngi koy waxaat ci suratu fussilat bismillahi arrahmani arrahim inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu ba yàlla waxee ne alastu bi rabbikum fi aalamil arwaax arwaax ya nga xam ne dañu waxoon ne waaw yàlla mooy suñu boroom bi ñu ñëwee ci àdduna la ñu jaayante woon ak yàlla ci kóllëre ci ne ko du ñu wàcc mukk sa yoon fi nga ñu teg fi la ñuy jaar danañu jub danañu jubal danañu gindee ñu baax danañu wax yiw danañu def lu baax ci penc mi ba ñu ñëwee ñu sax ca loola mbokk yi ñoo ñooñu yàlla daf leen sant gërëm leen ndax am na ñoo xam ne bii waxoon nañu waaw bi ñu ñëwee fii ci àdduna la ñu signé woon ak yàlla dañ ko rek dañ ko wor respecté wuñ ko kon dafa am lu ñu tuddee diiwaanul muminina min ar-rijaal waaw muy bu am solo diiwaanul muminina min ar-rijaal alladina sadaqu maa ahadu llaha woon ak yàlla jaayante ko ak yàlla war a nekk représentant yàlla ci kaw suuf ci wax lu baax def lu baax defar diggante bu yàqu jokk mbokk dimbale koo tane téye àdduna bi ba du yàqu du ñu gas mukk kàmb goo xam ne kàmbu safaan la pour nit dugg ca du ñu yëkkati kàddu mukk pour yàq ak bokk wala ñuy xotti xorma ñooñu ñooy ñi nga xam ne bii sadaqu maa ahadullah alayh mawlaana cheikhul xaaji abdul aziz nag radiallahu anhu su la dee wax mooy kan du la ko présenté ngir njab ngir askan waaw cheikh alxaaji malik moo jur askan baax juddu bu rafet baxna na ci fu bax amna solo ndax yàlla tag nako wa kana abuhuma salihan waye doyul ndax bu doyon yunt yàlla nuh nga xamne yonent bu mag la min ulil azmi wote ne junni at wa ma amana maahu illa qalil domam ja Kanaan yàlla du ko rocce ci ndigam mu jur ko biologiquement ba nopi yàlla ne ko dom ju juruloo innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih su askan doyon yonte yàlla nuux soxnaam ma nga safara su askan doyoon yonte yàlla luut soxnaam ma nga safara su askan dayoon abu taalib li mu daj ci sallallahu alayhi wa sallama ana abu jahl ana abu lahab ñooñu nga xam ne ci wàllu meen ak ci wàllu askan jege woon nañu lool sallallahu alayhi wa sallama waaye terewul ba ñu weddee la ko yàlla yónni gëmuñu ko yàlla def na ko ñii kat bokkut ak ñoom dara waaw bilaal ma nga xam ne ma nga bàyyi ko ca xabasha di ko ñuul kukk ñu xeeboon ko lu nekk umay yotub nu xalaf def ko ko yëkkati ay xeer ak màkk ni mu tànge ñu teg ko ci dënnam nan ko laa tazaalu hakada xatta takfura bi muhammadin wa taabuda allaata wal uzza mbugal mu metti mi ak li ñu lay teg duñu ñu la ko teggil mukk luddul da nga weddi Muhammad nga jaamu lata ak Uzza pas-pasam bu dëgër ak ngeum yàlla may ko mu nan ahadun ahad kenn la kenn la kenn la kenn la ana suhayb ar-Rumi ana salman al Farisi ñoo ñëpp ay jambour lañu waye ñëw nañu diine l'islam ak gëm sallallahu alayhi wa sallam may na leen ñu am jage yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cir bu tol ne ba ca abou Aboubacar amone ak Omar ak Ousmane ak Ali ñoom te mujj nañ ko am te bu doon ci wàllu askan ak couleur ak langue wuute nañ kook waa Makka kon mbir mi du caagee nag askan rek diwoo ma jur wala diwoy sama maam bu fekkente ne diwa la jur te juboo lu baax la mu nekkoon nekkuloo ca itam kooku kenn du la takk kon Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz yàlla baaxee na ko nag mu boole ñaar yëpp bokk ci askan wu baax góor gu baax jur ko sang jur ko nitu yàlla jur ko. bu dee wilaaya bu dee xam-xam bu dee ragal yàlla bu dee jàngale ak yar ak defar nit fa tabarakallahu maam Cheikh Alhaaji Malick am na ci ba mu doy sëkk loolu am na ko ci moom su ma koy présenté ginnaaw bi ma jëlee loolu def ko muy sama tawtia muy sama introduction dama lay wax ne Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz radiallahu an dama la koy présenté comme koo xam ne kii dafa bokk ci diiwaanul muminina min ar rijal waaw diiwaan boobu yàlla tagg nit ñi bamu mu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw di jàngale tawhid di wetal yàlla ak gëm yàlla amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal muminuuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa rusuli yàlla daf ko bolé ci diwan boobu te ñooñu yàlla daf leen tag lamu leen tag modi ni ñi modi xilla bi nga xamne xamnañu lutax yàlla bind leen yàlla bindul pour hasard afa hasibtum annama khalaqnakum abathan وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق كن يالا بندل بورفو أمنا لتفهم بنت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يالا بوليكو مو بوكو تي نيغا خامني نيو لوتاخ يالا اندي لين تي كاو يالا نينا بيماي بند نيت اك جيني دارا تاخول وون لودول نان ما جام خام ماي جوخ ما سما تير جامو خرم باña جامو بكان باña جامو بانيخ baña jaamu daraja baña jaamu alal baña jaamu askan lañ ma wétal man yàlla jox ma lima mom motax bo de boo ci diwanam yi ma tek ci kanamam pour présenter ko nit ñi ñu xamne ne góor gi mi ngi doon liggéeyal yàlla togul won waye mi ngi doon talif bàyyi fi ba bu ëllëgee ku nar a jaaxle ci delloo xamne ya jaxlé waye lim wara wax yëpp yo wax na ko yow yàlla ma ngi lay sant lima lay sant moy fatahta li qalbi ilahi fa'raf بأنك المعبود حقا واعترف لما لا سانت موي يالا داغ ما باخي اوبيل ما سما خول جيمبت كي باتو لا اله الا الله محمد رسول الله جيمبت كو تي مسخ ماغ تي دما دم با انكري تي دادا مانو توكو فار ما دما دم با خم خم غو وير من عبد العزيز ني انت المعبود حقا يو قط ياي كي نوارا جامو تي دغ واعترف مو ريكونيتر كو صح تي بو بو الليغي دوتو كو باي كون شيخ الحاج عبد العزيز استاذ suma ma la ko dee présenté moy kan dama nan moy ko xamne ki rajulun min ulaika rijal rajulun min min tilka taifa al mumtaza al mubaraka nga xamne yàlla daf ne sadaqu ma ahadullah alay waruñu yàlla xam nañ li tax yàlla indi len xam nañ li tax yàlla bind len ñu nek ci nak mu metti lol jafe-jafe yi bari lol galankor yi bari ndax sayyiduna muhammad mi ko wote lu nek dajna ko makka umayyatu bnu xalaf walidu bnu mugira abu jahl abu lahab kàccor yooyu taxaw rek sallallahu alayhi wa sallam mu dëkk Makka juddu juddu bu rafet ñëpp xam ko musul mooy yàlla musul def lu ñu naan ndo waaye tereewul keroog ba mu ne yàlla ma yónni ñooñu ñoo njëkk a jóg ne ko li ngay wax du fi jàll xatal ko ci biir Makka fukki at ak ñett def na ko Makka bëgg a taxawal kalimatu laa ilaha illa allah fa rafadat quraychun an tatalafada bi hadihi alkalima mu dema dem ba màkk xat yàlla ne ko génnal boo demee Medina daa fa fekk gaa ñu baax ñu jub ñu la jàppale kon luy woote jëm ci yàlla ak liggéey bu baax bu rafet bu sell musul yomb jafe-jafe yooyu nag sang bi dem na yonent dootul ñëw gannaawam alayhi salaatu wassalaam saxaaba yi wuutu ko fii borom xam-xam yi wuutu leen muy ñëw ba agsi Sénégal ba agsi ci maam Cheikh Alhaaji Malick ak njabootam ba agsi ci góoru yàlla yi nekk ci biir Sénégal ak seen njaboot cheikh alhaaji abdoul aziz bokk ci njabootu cheikh alhaaji malik yanu yan ba mu yanu woon xam na cër bi ko yàlla teg cër boobu nag boo ci àggee da ngay dem a dem ba da ngay jël sa bopp may ko yàlla njaboot dootu la tënk wéradi dootu la tënk ñàkk ay jumtukaay dootu la tënk ay xat-xat dootuñu la tënk njaboot dootu la tënk yàlla rek ngay teg ci sa wet kooku day dem ba nekk référence ci pénc nga xamante ne bu jafe-jafe amee bu xat-xat amee bu tiis amee bu jaaxle amee nga xam ne institution yëpp gàgg nañu référence boobu la ñuy dellu ci moom mu gàgganti leen Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ci góoru yàlla yooyu la ko boole kon daal loolu ci gàttal mën naa wax ne kooku mooy Cheikh. jërëjëf Pape Makhtar ci li nga wane ci lenn ci loo tënk ndax mën nañu wax ni li nga mën a wax ci moom bari waaye néew na fu ñu gis góor gi te gisuñu la. néew na ci dundam tamit foo dem te du moom moo la fa yabal kon mën nañ wax ni dundam yépp ci la nga ca fekkee yaa ngi woon ci wetam lan moo la gën a marqué ci moom euh, oustaz jërëjëf cheikh alxaaji abdul aziz radiallahu taala anhu wa ardaahu yàlla baaxe nañu yeeyowuñ ko du xam-xam du juddu du wërsëg du dara lu ñu war a amee maqaama di ko kotuwaaye waaye moom ci mbaaxam ak bëgg njaboot ak yaatalam ci la ñu jële woon ñu bokk ci mbokk yi nga xam ne ak taalibe yi nga xam ne nekkoon nañ ci wetam di taataan ci ay leeram di taataan ci ay mayam di taataan ci ay njàngaleem ñun amul dara luñ ko apporté ndax fekk nañ ko mu mag avant ñuy ñëw fekkoon na léppam di dox jamono itam ñëw na ba yàlla jële ko fi terewul léppam mi ngi dox kon ku yaakar ne yaay doxal ay mbiram wala nit ñi di la jey ba nan la sak nga ci kër gi ba nga defé ne yow da nga wara a say laaf wara a naaw yaa ngi bari na kuñ nan sak nga ci kër gi te fekk kër gi la sagal kon si malik and bi and ak mom depuis ñu tut tank ba yalla di dogal ay ay fanam jeex ruham wara takaliko jëmmam ju tedd ci ta mu bok ci limu ñaanon yalla ne ko yow sama borom maa ngi lay ñaan ragaluma dee ragaluma dee dee gi ma ragal mooy deewu tumuranki dee goo xam ne ñi may tiim di ma sang di ma waajal di ma jébbal sama borom du ma leen xam googu dee ñaanuma ko yàlla waaye su ma génnee àdduna ci sama biir biiri mbokk ñu taxawuma niñ ma war a taxawoo ba ma ba mu pare ñu jébbal ma sama borom bu ngeen ma dee denc ba gisatu leen dara lu bokk ci man na ngeen ma bàyyi sama borom li mu man ci man keneen mënu ko ci man mu ñaanoon ne yow yàlla maa ngi lay ñaan su ma demee ba sama ruux war a tàqalikook sama sama jëmm maa ngi lay ñaan malakul mawti mi ñuy tudde Azraïl bu ñëwee war ko jël maa ngi lay ñaan yow yàlla sama ruux yàlla na ko jël sa bopp yàlla na woyof toy sukuraat métti na yàlla nag ma ci musal ma dem dem ko sedd te loolu alhamdulillahi rabbil alamina émission bi du ko may mais yàlla defal na ko kon période boobu ñu ànd ak moom mu gàtt mu gudd li ñu gën a yéem ci moom gën ñoo marqué ci dundam moo di bàyyi gi mu yàlla bàyyi bàyyi gi mu bàyyi yàlla xel ci wéetam ci wettalikoom ci tukkeem ak nekkam biir Sénégal yàlla moo doon wettalam ci lépp lu mën a doon mais yi ma gën a ci ci dundam mu Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz radiallahu anhu moo di jikko yu rafet yi mu làmboo te mu jafe ci jamono bi ci njëkk mooy suturaal du la weer mukk te xam ne ne ànd ak xale yombul ànd ak ndaw yombul waaw xale dafa tëradi bëgg yàlla manta mat waaye terewul yow mi njaboot nekk ak moom loo sikk-sikk loo dëng-dëng lu say tànk yeex-yeex ala jàpp dana la la suturaal du weer njaboot du weer njaboot muy benn bu ñaareel bi itam mooy du gedd njaboot noo mën a mel boo defoon benn loo war a def tey ci suba mu yedd la ngoon nga defaat ko du tax mu ne kii kat naa génn ci moom que waxoon naa ko tey ci suba mu répété waat ko ci ngoon kon man pare naa ci moom ñaata yoon lañu du nii du nii du nii sutura boobu daana ko yóbbu ba oustaz su ma defee dara man maxtaar mu war maa yedd suturaam àgg na ci dana xam ne maa ko def mais dafay woo njaboot gi yëpp ñu bokk toog mu ne day ah nangam ak nangam nangam ak nangam nangam ak nangam te xam na ne man maa ko def mënoon naa jaar ci sama tur mënoon na maa weer waaye du ko def ñëpp lay boole wax te loolu daf cee roy suñu borom boo demee ci suratu ba yàlla xamoon na ne sallallahu alayhi wa sallam kuréel bi ko wër am na ci ay munaafiquun yoo xam ne li ñuy woote gëmuñu ko ñi ngi gàllankoor daawa bi luñu xam ci képaru yonent bi alayhi salatu salaatu to xal yobul ko wa Makka ak ñeneen ak ñeneen ak yahudi bo demé ci suratu tawba bi yàlla di tuddu do fekk mukk mu jaar ci sen tour wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum man yalmisuka fi sadaqat wa minhum man ahada allah la in atana min fadli sutura bobu oustaz bok na ci lima gëna yem ci Cheikh al hadji Abdoul nit du wer njabotam lolou yem na ma ci mom bi ci tegu itam bokk na ci li ma gën a marqué moo di bëgg njaboot xormal njaboot am na ci loo xam ne njaboot mënoon na koo defal waaye xam na ne li sang bi waxoon ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam moo tax Cheikh Al Hadj Aziz cër yi ko yàlla joxoon ci wàllu yàlla garaatu xalif général de Tijane wilayaam xam-xamam ak darajaam moo daan demal boppam marché di duggal njaboot. ànd nañu ay yoon fii ma toog ak yéen jëm ci kaw tuuti fa tabarakallahu <coughs> mu ñëw fii di jënd ndugg pour njabootam ci xalif général de Tijane koo yónni mu dem koo dawloo mu daw koo maajloo mu maaj waaye mu wàcc ànd ak ñëpp fa tabarakallahu ànd nañu seeraas ba tàyyi mu dem wutali njaboot ndawal oto bi naaj wi dafay tàng nit ñi sam ko fu nekk jaral na ko toog ñaari waxtu ba ñu jënd ba noppi ku ci nekk la nga ca moom ci njaboot gi ak dëkkandoo yi ak soppe yeeg jaamu yàlla yi ñu bind ci sa tur fa tabarakallahu yóbbul ko ndax xam na li ci nekk ci yiw xam ne li ci nekk itam ci tiyaaba yére moo daan jógal boppam muy fii ma masaan ànd Maroc mu def ziyaaram ba noppi dugg ci boutique yi di jënd ay kado ca jamono yam koy man moo daan jógal boppam dem tis yi muy jënd daf ciy bàyyi yàlla xel surtout bu dee njaboot gu jigéen ndax tissu bi woyof na wala woyoful yaraax na wala yaraaxul jamono yi koy man moo ko daan yóbbu ci téyeer pour ñu ñawal jigéen ñi pour ñaw bi dëppoog colko gi nga xam ne moom la yàlla bëgg jullit bu jigéen di ko sol kooku oustaz bokk na ci li ma gën a yéem ci moom wàccam bëgg njabootam suturaam ak ñàkk gedd nit boo doon gedd nit kon ñun ñëpp gedd nañu ndax kenn ci ñun matul woon mat goo àndeek xut bu samaan bu toll noonu waaye nag moom ci mbaaxam ci la jël ñëpp yéege leen suturaal leen fa tabarakallahu ba tey alhamdulillahi rabbil alamina suñu mateeg suñu matul yëpp yàlla dugal nañ ci biir kaaraangeem loolu bokk na ci li ma gën a yéem ci dundam waaye ñu gis ni ni réew mi tëddee ci wàllu tarixa yi fi nekk ci wàllu diine yi fi nekk ci la société ci la politique waye yalla dogalon ñepp sop ko ba buñu démé ba am ci jël référence ci mom lan nga première question ta modi kan Cheikh El Aziz radiyallahu anhu dafa bokku ci al mu'minina min ar rijal sadaqu gis nga oustaz yàlla bo deggo ak ak mom ci liga nga jaayante ak mom waruloo ko mu jox la cër bo xamne kenen du ko am waaw ndax yàlla neena sama jam du dañ yataqarrabu ilayya bin nawafil du dañ matal ay faratam nek ci nawafilul khairat nek ci nafile yi lo xamne du farata ay ndollante la waye nga nek ci ba dem ba daf ko daf ko sax muy farata yàlla neena sama jam daf ci nek hatta uhibbu ba sopp ko man yàlla su ma ko soppee dama koy abal sama dégg abal ko sama gis bu doxee sama tànk la doxe bu laalee sama loxo la laalee loolu waxin la yàlla amul tànk amul loxo yàlla ëppante nag loolu waaye dana dema dem ba yàlla daf koy daf koy daf koy yaatalal daairatu samaam ak daairatu basaram bala muy xam man ko nit ordinaire du ko man yàlla neen du ma ci yem damay wax jibril da ko fonk naa diw sopp ko uhibbu fulanan fa ahibbahu yaa jibrilu jibril ne sopp naa ko ngir sa jëmb mu ne ko wooteel ci goxu asamaan yépp ne leen sopp naa diw waa malaul ala sopp ko su ko defee thumma yudaau lahu alqabulu fi l ard ñu defal ko qabul ci kaw suuf lu mu laal yàlla def ci barke lu mu wax xol yi tëju woon danañu ubbu danañu ubbeeku nangu ko kon jox gi mu joxoon yàlla boppam daana wax ne man Abdul Aziz xam naa ne li ma bëgg ci yàlla marchandise la moo xam ne jafe na lool prix bi jafe na lool bala ma ciy jot danañ ne Abdou dafa ñàkk fayda waaye yàlla jaral na ma ko da nga seeti koo jur seeti koo mag seeti koo xam ne ko yilif da nga dem ba sax ñu ne Abdou dafa ñàkk fayda waaye nee na yàlla jaral na ma ko dem naa ci comptoir bu fa nekk bu mu nekk gis naa marchandise bi waxaale naa prix bi cher na mais du ma wàññilu yàlla jaral na ma daana wax na itam maa ngi sant yàlla lii ma bëgg ci yàlla jafe na lool gàllankoor yi bari na bala ma ciy jot am na ñoo xam ne ñi ngi jàpp ci samay tànk pour ma jëm suuf lu ñaaw lu nekk danañ ko yëkkati teg ko ci sama der lu ñaaw lu nekk danañ ma ko waxal waaye man maa ngi sant yàlla li may sant yàlla mooy ñi jàpp ci samay loxo pour ma jëm kaw ñoo ëpp doole te ñooñ laa amal affaire te du kenn ku dul yàlla kon jël gim joxoon boppam jox ko yàlla mu dëggu thabaat bi mu amoon jamono bii koy woote jëm ci yàlla boo dëgërul doo dem danañu la gàllankoor ci wàll gu nekk danañu la xeex danañu xeex sa njaboot danañu jël lu taq lu nekk taqal la ko mais boo gestoo doo dem dangay doyloo yàlla dëgër ngëm yàlla bu dëgër dëgg dëgg imaanuhu te yàlla moom la tàmbalee aaya bi minal muminina rijaalun ko dem ba yàlla nangu sa ngëm ba boole la minal muminina yàlla wax ne ñooñu itam sadaqu ma ahadullah alay position bu rafet boobu mu amoon dëggu ci lu nekk daj na ko lu nekk daj na ko metti woon na lool metti woon na lool waaye terewul rek mu tëdd ne ñaay jubook ñëpp wàcc ñëpp di jaar ci kawam ba mu des ci loo xam ne bii neexul yàlla tabarakallahu kon cër bi mu am tey maa ngi fàttali fàttaliku benn bis oustaz ñu toog fii ci Gueule Tapée benn waaye kilifa la ci ambassade bu Belgique su ma juumul waaye daal ci réewu tubaab yi la mooy premier conseiller bi ñu yebal ko ci góor gi bi mu ñëwee waxtaan ak moom ba noppi laaj bii nga ma laaj moom la ko laaj mu ne ko daal góor gi dama gis ne Sénégal daal bàyyi nañ la xel jamono boo wootee wax ñëpp dañ lay dégg lu waay jàppoon lu mu mer-mer soo wootee apaisement rek kuy politique ku nekk ci syndicalisme bu dee ci wàllu diine soo wootee waaw sa mbokki jullit yëpp danañu ñëw dootul am tariq ñëpp ay ñëw wuy si la ñun loolu en tant que ay diplomate nekk fii dañu def constat bi ma la doon laaj lan mooy sa secret ba tax nga am loolu nguur gi daal di muuñ ne ma noonu ne ma ne ko loolu mooy wax de su amee man yëguma ko gis nga ne mu wàccee boppam fa tabaarakallaahu kon la ko ko mayoon moo di rek tëdd nangul yàlla yàlla tàggatal ko nit ñi yàlla boo ko joxee sa bopp mu tàggatal la nit ñi puisque boole wu ci woon ay feem boole wu ci ay pexe déedéet dafa jël boppam jébbal ko yàlla wootewul wax waxul ne ñëw leen mën a koo gis muy woote am njool nan njool maa ngi dum njooloo am na loolu ku ko yore doo woote doo ko sañ moom su ma sànn tëdd du nelaw da ngay toog ak moom mu jékki-jékki jooy jooy yu métti ba yow mi ndaw da ngay tiit incha allahu ci lay tëje question bi ma posé dafa am benn bis fii ci Gueule Tapée ñu toog julli tàkkusaan ba noppi bu tëdd ci pilien bi yore kursam di tudd yàlla ku ñemee woon tudd yàlla la ak li muy mage mage ak li muy wéradi wéradi buy tudd yàlla dafay da ngay defee ne sax góor gi nekkatu fi ndax yaram wu dal dafay concentré su ko weñ dalee yaa ko koy dàqal mais du ko dàq yore kurusam lu mat waxtu ak nangam per yi rek ngay dégg mi nga naan tacc tacc tacc tacc ba dagg naan góor gi nekkatu fi bi mu demee ba pare mu ne ma demal nga indi jawaahirul maani dañ ko daan jàng muy firi radiyallahu taala anhu ma indi mu ne ma seetal fi njamoon may jàng muy firi ñun ñaar rekk a nekk ci néeg bi yàlla moo ñu ñetteel ñu dem ba ci biir ma siggi xool ko gis ne rongoñ yaa ngi wadd xar kanamam bu leer boobu simaahum fi wujuhi min athari sujud wallahi cheikh alhaji abdul aziz ko ko bañ gisuma la mbaaw ku koy taayaan gisuma la mbaaw wa siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud xolam ba seetoon na wicc bañul kuy nit koo xam ne kii da nga daan dem jeg saaw bay tabaxlu ay mbalka di ci def ndox ne nañ jël dugub def ko ci wet gi ndax picc yi nga xam ne dañuy dox mission suñu tiimee suufu jag saaw gis ndox mi ak dugub ji ñu wàcc naan lekk ci continuer seen mission kooku du bañ nit radiyallahu taala mu dem ba ci yàgg am ñu dugg si mu ma continuer di jàng dama dem ba ci yàgg yamatul ci rongoñ yi di wa wadd waaye mu yëkkat yëkkat yu métte métti métti ña nekkoon ma ñaan leen ñu génn tëj téere bi tëj néeg bi diir bu gu yàgg dalul dalul ba mu demee ba dal ma ne ko si am na lu mu la bëggoon a laaj mu ne ma lan la ma ne ko dama xam ne cër bi nga am ci yàlla li nga liggéeyal yàlla si Malick ñëpp seedeel nañ la ñetti jikko yii danga ko indaale àdduna ragal yàlla ak tabe ak ñeme no sanko deg ci salam ñu ben jarbat bu ñuy wax alxaaji mouhamadul moustapha mustafa yal lingga yalla yok leeram tabarakallah ma ko li nga far ci rongoñu koy joy diggante bu yaq mbokk gu nara dok nga xagn sa bop sa daraja xagn sa bop sa alal xagn ko sa njabot jox ko jaamu yalla yi guddi gi doon nelaw yaangi jaamu sa borom yaangi ci jang alquran yaa ci dëj yaangi ci takki yaangi ñi febar luy jokk rek walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal kenn jiituwula ci si malik soo tolloo ci at yi nga toll di jooy ngir sa diggante ak sa borom ñun ñii di ay ndaw di door a dugg buntu àdduna taq rip mënuñu xamuñu ba noppi boole koog yore làmmiñ wu rëy fan lañ jëm si mu ne tekk ba mu yàgg mu ne ma muxtaar ma ne ko si mu ne ma lenn ngeen xam ci man moo di góor gu ñuy wax Cheikh Alhaji Malick mooy sama waajur wu góor jigéen ji ñuy wax soxna Safiyatu Ñaŋ mooma meññi mooy sama yaay loolu ngeen xam ci man maa leen gën a xam sama bopp yàllaa ma gën a xam sama bopp bàyyi leen tagg yi ngeen may tagg teel na bàyyi leen ba ñu teeri ëllëg ci kanamu yàlla ba ñu peser balance yi xam kan moo diisle xam kan moo woyofle foofu la ñu war a tagg nit waaye tagg teel na te loolu xam nañ ne mbaax rek a tax ak wàcc ak jàngale waaye kenn werantewul ne mi ngi bokk ci diiwaanul muminina min ar-rijal alladina sadaqu ma ahadullah alay te yàlla nee na danaa leen fay de li yajziya allahu fa minhum man qada nahba yàlla boole na ko ci jëmmam nekkatu fi waaye ruuxam ak jëfam ju baax ak njàngaleem ak yaram ak tegginam ak orientation am ci képp ko bëgg lu baax du fi jóg mbokk mbokk li yajziya allahu sadiqina bi sidqihim incha allahu yàlla boole na ko ci mu ne ma xam nga lu mu bëgg maxtaar ngeen di moo ko ñaanal ma ne ko déedéet mu ne da ngeen naan yàlla sa jaam bii ñuy wax Abdul Aziz njortal jaam ñi rafet na ci moom yow yàlla yàlla boo tas seen yaakaar mu ne ma yem leen foofu mu ne ma ndax àdduna dafa xamawul këru jëf la te nit ki mën naa jëf lu baax lu rafet dama dem ba naagu gis ci boppam yàlla mab lépp àdduna dafa xamawul mu ne ma kon boog tagg yi teel na da ngeen bàyyi ba ëllëg ci kanamu yàlla foofu la ñuy tagg nit kon daal oustaz góor gi daal li ko may li mu am mooy jël boppam jox ko yàlla nangul yàlla ci ay farataam ci ay ay nawaafilam yàlla tàggatal ko xolu jaam yëpp nag dugal ko ci biir am na doomam yu ñuy wax sëriñ maam Ousmane si di caatam mu góor yal yàlla guddal fanam te may ko wér ak i mag a mag yi tabaarakallaahu jigéen ñeeg góor ñeeg képp ku Cheikh Alhaaji Malick jaboote nee na Cheikh Alhaaji Abdoul bi mu génnee àdduna kenn suulu ko ci suuf ci xolu jaam ñi lañ ko suul kon loolu moo ko may cofeel googu Muxtaar ci leeral yi nga xamante ni indi nga ko waaye mënuñu toftal benn laaj ñàkk toftal benn laaj ci waxtaan bi nga def te mooy bis bi dellu si waat ni keroog bi nga xamante ni tàgg nañu la góor Sénégal yëpp xalaat nañu la mhm. ban yëg-yëg nga ci waaw oustaz euh, loolu moom ñun dañ ciy sant yàlla ndax li may wax rek ci mbaaxam ak mbaaxu njabootam ak seen yaatal ak rek bëgg nit ci la yàlla boole ñu bokk ak moom fanaan ci néeg bi nga xam ne ci la génne àdduna kon ñun dañ ko dund waaw ñu bokk ak moom ci principal néeg bi mu génne àdduna ñu bokk ak moom fanaan ci benn néeg mu tëdd ci kaw ñu tëdd ci suuf di fàttaliku kàddu yi mu mujj wax mi ngi résonné ci suñu nopp ba léegi kon loolu dañ koy sant yàlla biñ ci yàlla boolee ci mbaaxam yàlla ci ci mbaaxam moom mbaaxu yàlla ak mbaaxu góor gi ak mbaaxu njabootam waaye ñu dund ko dundinu ku dal xel ndax xam nañ ne moom bis bi bàyyi woon na ko xel waajaloon na ko yaroon nañu itam yar boo xam ne ñu gis ku nekk génn àdduna ci kanamam ci njabootam ndax yàlla may na ko mag ñi fi génn àdduna ñëpp ñu ci bare bari moo leen fi mucc ñu gis sago bi mu amoon ak ku mën a génn ci àdduna ci kër gi loo ko jege jege nga defe ne tey la àdduna yi tukki tey góor gi dana wàcc ay rongoñam wala dana saalit wala dana jaaxle keroog la ëpp sago boo ñëwee yow di ko jaale si fekk ko tiwaawoon wala jeg saaw da nga naan xanaa góor gi amul dëj mingi ngi waxtaan waxtaan bu naturel mingi ci talifi ma ngay recevoir ay gan ma ngay joxe wird tabarakallah ma ngay yeewi ay gan loolu ñu dund ak mom daf ñu ci yar ba nga xamne li événement bi di reuy reuy ak li muy metti metti nangoon nañ ko ak dogalu yàlla xamne bis bi wajal nako ci anam yu bare bare bare yo xamne tay bo togo nak Cheikh Al Hadj Malick di tawum di khalifam wala nga togo ak Serigne Babacar Mouhamadul Mansour di khalif général ولا nga togg ak serigne Babacar abdul Aziz ولا nga togg ak serigne Mansour abdul Aziz ولا seeni rak ولا soxna yi muy soxna umul khair yi di soxna aida di soxna Safiya waaw ak kum meuna don ci njabot gi rek fa tabarakallah bo togge ak mom da nga xamne gor gi wajalon na len bis dana ma sa ñëw ma tagulen lam lam ko don waajale nag moy na ngeen gor góorgóorlu ngeen nek ci ñub nek ci lu bax bo bu ëllëgé su ngeen ma gisatul ngeen xamne yàlla mo fi nek ngeen wéru ci mom kon boo keroog ba ba mbir mi xewee li muy metti metti ànd nañoo sago ànd nañoo dal xam ne ñàkk nañ ko waaye tey lañ koy door am loolu daal yàlla defal nañ ko fa tabaarakallaahu te yaakaar naa ne yàlla defal na ko njaboot gi yëpp li muy metti metti kenn saalitul génn nañ ko yóbbu nañ ko génn na àdduna fii ñu yóbbu ko ba Tiwaawan ba denc ko ci denc waayam bu tedd boobu te gisuloo kenn koo xam ne jooy nga jooyu rongooñ jooy nañ ko jooyu xol nag ndax ñàkk nañ ko dootuñu ko gis waaye mbaaxam ak yiwam ak jëfam ak bëgg njabootam ak bëgg réewam ak bëgg àdduna bi yëpp loolu moom du ràpp mukk te ñu ko teg ci suñu xel ba keroog ñu koy fekki yal na yàlla yokk dool ñu taas ci barkeem yal na yàlla doollee gërëm jëfam bésam bii di la 14 kenn màggalu ko du anniversaire bu ñuy màggal bu ko Cheikh Al Hadji si woote woon wala sëriñ Babacar xalifa bi ne dama bëgg ngeen ñëw fekk suñu Tiwaawan dañu bëgg anniversaire la suñu bay kon defe na ne aduna bi ñëppay ñëw ci wayé dafa fekk ne nak mo liggéey liggéey bo xamné mi ngi ci xol yi xol yi mënuñu ko fàtte su ko défé su bis bi ñëwé rek ñu fatali ay jaar-jaaram xamné am nañ kilifa go xamné mat na royu way ndaw ñi dellu ci mom su ko jamono maye woon danañ jaar ci enfance gane adunaam ak ni ko mbaayam yare yar bu metti te muy doomu qutbu zaman bo xamné togon na ci ala kursijil xutbaniyatil uzma waaye choyé wu ko daf ko bàyyi ci daara ji mu tumuranke metti lool ci lay tëje sama kàddu daana wax ne man ki ma doon yar naxuma woon waaye man Abdoul Aziz dama nangu woon kon ñun te mbokk yi yàlla na ñu nangu surtout ndaw ñi nga xam ne ñoo ci toll war a góorgóorlu war a jàng war a defar seen jikko war a dem ci lu am solo te bañ a passé seen temps ci loo xamante ni bi amalu leen benn njariñ ci àdduna amalu leen benn njariñ ci àllaaxira mbokk yi loolu amul solo hada wa billahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار الهنا دار الهنا وكذا الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها